suñu yaakaar tey ak ëllëg di ñaan Cheikh Sidi Mokhtar suñu borom yàggal ko fi lool ba naa ñu naaloon Xadimu Rasuul mu eggale ko eggale waaye naa li boppam te ànd koog moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Sëriñ Tuuba ñu ngi dégg bu baax ci jataay bi ni ko Sëriñ Ahmadu Aliyu waxee ci rafetaay bi wax bu ne jóge na fa ngir dundaluñ ko ngir jëmmi xadimu rasul ngir jëmmi dinay lislaam teew fii ci daaru naan ci bis bi nga xam ne njabootu sëriñ Aliou bi yëpp ñu ngi màggal way jur baax ya dañ cee tànn suñuy bunt rek waaye la tàmbalee ca maam maaram ba agsi ci ñoom lañu ñaanal ku tàmbalee ci Cheikhul Khadim moom Cheikh Mouhamadou Moustapha jaar ci sëriñ Abdou Salaam jaar ci sëriñ Aliou ak sëriñ Ahmadou ci di ñaan li mu fi ñaan lépp suñu borom nangu ko te la cay yiw lépp ñu ko doon ñaan am ko tey wal ba dem ca ñoom ba ca e, njabootu màmbaaram yépp e, di sant ñi fi teew ñëpp nag ci bokk yi ak taalibe yi ci suba ba léegi li fi teew wax dëgg yàlla njaboot sëñ Tuubaa gépp teew nañu fi ñuy sant bu baax euh, ñu fi teew di tàmbalee ci sëñ Abdourahmane Niang di ko sant bu baax di sant tam sëñ Moustapha moom Cheikh Mamadou Lamine Bara ñi fi teew mhm. euh, dafa am su ma koy nawee tuuti sa wajur nekk Sëriñ Tuba jaar fi euh, ca lëg bëgg lu baax woyof ga mën a jiisoo ñëpp di jóg di seeti ñëpp dajale waat dalalaat xel yi taalibe yëpp ku gis loola riir jëmay àndal ak euh, la muy àndal ci lu lu lu loo xam ne ay ay xéewal lay doon nga mën a seetaan loola jaar fa nga war a jaar ci jàppale jubóob taalibe yi ba mu jógee fii boo foo tasee ak doo sëgg. déedéet defe naa ne loolu yomb. lu mat di bàyyi xel toogaayam bii wax dëgg yàlla ma naa fa lool loolu lu am solo la ndax nit ki itam war nay xalaat ëllëg ci ay doxalinam ci ay comportement lu am solo la xeebuwul kon ñu ngi koy sant bu baax di ci moom di sant jaroo suñu tubaab rek maam Thierno ñu ngi lay sant bu baax yàlla ah, yàlla du ma booleeg mbokk. waaw ma mbokk. maanaam léegi soxna Awa Balla. waaw ah, waaw waaw fa daan tase. maanaam mhm. Thierno Niang suñu si àndee ñëw na fi suba. Mhm. Euh, moom it yàlla def suñu way moo doonoon day daaram fii. bi sëñ Moustapha di wax li jóge ci sëñ Sidi Maxtaar yóbbante ba mu ko yónni ci man booba mi ngi toog ak bokk mi bari sëñ Sidi Maxtaar ne ko ñeel Cheikh Aliou moomu. Euh, ku bon bukki xaj doo mhm. waaye nag xaj mën na ko ba waaye du ko mat yooyu alhamdulilah sant yàlla ma daal di gisaat ne jumaay Sëriñ Tuubaa yu sell ji Cheikh Mahamadou Moustapha tàmbali ko def nañu exposition raay bi Cheikh Mamadou Fadil eggale ko inauguré ko Sëriñ Abdoulaye ñëw euh, rafetaat ko yokk ko sëñ Sall ñëw yeesal Cheikh Mamadou Lamine ñëw bu gaaw a gaaw waxuma yeesal gi waaye quartier yi wër foofu yëpp mu defaral sëñ si di maxtaar mi yëkkati ñaari soroor ñu naan du farata di ko critiquer ah fees di mucce fees di mucce ah sëñ tubaab bu ñu loo xam ne ñu nga fi def ñëpp bu sëñ tubaab ñëwoon gërëm leen nga ne nga ne nga ci bëgg a wax dara bu ko defee bu sa xel nekkee foofu da xam ne ñu baax ñun ñëpp ci jaaroon ci jafe-jafe bu fekkente ne dangaa leen bëgg a niru lu mu néew néew la te bëggooy jafe-jafe gorowu kon foofu rek lañ koy daal di féetale yu bare bari euh, di sant bu baax sëriñ bu sunu rek lépp lu ma nekk ma nga képp ku am lu baax da def ne moom sëriñ Tuubaa da koo jaral gas na forage ci Touba loolu alhamdulilah rabbil alamin ku sañoon loolu mu ci xoli murid yëpp kenn ku ku ne bu ñu sañoon dañuy suñu borom doy na wërsëgale bañ gaaw jëkkante gaaw gaaw ci sëñ Touba parce que ba mu def na ko defaale na ko ñoo ngi koy ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di nuyu sama mbokk waa kër Maam Dambal yi moom it ak yokk ak ni mag ñoom ñu ngi sama di sant Mamadou Diop Decroix ma tuddee ko Mamadou Diop Yaaba Yaaba moo jur maamam maam Cheikh Yaaba mi Yaaba jur mooy mook euh, way juru sëñ Aliou jigéen ñoo bokk ndey baay noonu rek la daal dem Mamadou it di nit ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla fu mu toll lépp lu ma sa xew la ñëw ca teew ci euh, lu bari ci njaboot gi sax foofa kër Yaaba Euh, man am naa fa tool euh, fa mooy cosaan bi kon alhamdulilah yàlla moom boole bokk boobu ñu koy sant bu baax ci teewaayam bi moom it di ko gërëm di ñaan yàlla jàppale ko bu baax waaw jàppale njabootam te barkeel ko sëñ Abdourahmane ñu ngi lay sant bu baax yow itam kenn ku ne gis naa sa jëf yu baax say jéego <laughs> jéego boo yëkkati rek suñu borom sëñ Tuubaa tax li bu bëri tuuti rek sëñ Tuubaa tax kon ñu ngi ciy sant bu baax gis nañ ne yàgg nga fi jotaay bi yàgg na dëgg yàlla ñu ngi ciy jégalu waaye yàggul ci yow ndax lu baax rek nga bëgg di sant bu baax waaw njaboot si nañu gi kenn mosu leen a dégg ci lu ñu wax dëgg yàlla def nañu suñu fierté bu baax a baax a baax am nañu yar am nañu teggin ki kenn du leen dégg ci lu dul noonu te jamono dafa xaw a yàqu kenn ku ne ñu ngi lay dégg fu ne loolu alhamdulilah sama satisfaction bopp la loo xam ne dama leen di jël seere ci yéen ne loolu sant naa leen ci bu baax ndax bu suñu am yi ñëwoon duñu dus bu déglu kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi baax suñu Moustapha Moussa ku ma xam-xam nga ku ma xam rek xam nga ci bu xëyee këram suba ba ba ba miir yi ba minuit ñu ngi ci soxla jàmbur yi. soxla si nit ñi boo nekk ci seen soxla yàlla nekk sa soxla man kaana lillaahi kaana la ki ma dendal nag di sëñ Bass Porokhane alhamdulilah xam nga lu am solo la tur tur wi day wuyu la muy wundi sëñ Bass Porokhane xaw naa dee Porokhane de xaw na faa dee la ngay def ba ab dëkk dëkk ñu kole ko ci ci ci saw tur ba boo ko bëggoon a dindi tey boo ko waxee kenn du xam jëmu jëti kenn du ko xam ah wax dëgg yàlla mu jiitu fa nekk pionnier pionnier pionnier pionniers xam nga leen ñoo demoon États-Unis jiitu fa defar ko ba léegi muy euh, réew mi gën a développé ci àddina te jógewu dëkkuñu fa parce que foofa ay indien fa dëkkoon ay indien ñoo dëkkoon foofu kon suñu euh, bas bu yàlla ni nga def poroxaan ba poroxaan nekk tey nga xam ne képp ku am euh, kër Tuubaa bëgg nga fa am kër loola la ko la ko def noonu sëñ loxo sëñ bas mi moo ci nekk ndax même sëñ Moussa Bachir ci nekkam da ko faa yebal woon bàyyi ko comme ni ñu yebal rek nitu daara yebal la xam ne booxe dara du fa am ngay mën rek boo nee sa bi baax na boo amee sa càllal la rek baax na wala dara noonu la fa nekkee woon ba Porokhane nekk nii ñu koy sant bu baax dëgg yàlla euh, moom itam ci tey doomu aadama yi lay yenn ci lay fanaan lu baax rek ko yëkkati ni mu ko waxee sëñ Moussa Bassirou dama ànd ak moom mi mii di dem ci sëñ Moustapha benn tàkkusaan ak Cheikh Anta Mbacke mu ne ah bu ne Mbacke Mbacke de bu ma sañoon ñun ñëpp dañuy nekk benn waaye day seen ànd bii nag moom a ci gën a dàqalati loolu alhamdulilah rabbil alamin ñu ciy sant bu baax daal may nag sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Xaadim docteur na bu baax li tax ma waxee noonu na bokk sëñ Modou Awa Balla waaw euh, euh, ñu ngi lay sant bu baax et ñi nga taxawoo sunu euh, wéyjur ci soxna gàdda kon nga ni ku sori ci la ndax ba ñuy ndaw dañu daan jàppale loolu nag fàttewul yónnee na fi ndaw comme soxna jaxate ak yi soxna jaxate moom it yónnee na fi ak ñu bare bare kon ñu ngi lay sant bu baax la wax dalal ak jàmm kon daaru na day dëkk boo xam ne ni ko sëñ Ahma waxee léegi ni ko euh, maanaam euh, Cheikh Mamadou Moustapha bi ko Serigne Touba tegtalee ci ndóol ci moom Cheikh Mahamadou Fadal moom it ndindi ne leen ngeen dem foofu di liggéey di jaamu yàlla di seer si ginnaaw boo fa jógee la ñëw fii daaru naan yi mu ñëwee sanc ko sanc bi ba mu ko bëggee ku ko ko tuddal dafa woo sëñ Fàllu ak euh, sëñ euh, Mbàkke Buso biñ ñëwee mu ne Cheikh Mahamadou Fadal comme ni mu ko def ci ni mu ko defee ca Taif te yaakaar naa ne yéen a ngi fàttaliku ba may jàng woy wa foofu ba ko Cheikh Mamadou Lamine ñëwee ma di ko teeru fii itam noonu la def ne ko tudd ko Cheikh Mamadou Fall jàpp ci mbëggu sëñ euh, Mbacke Bousso ko def ci aw woy fii loola euh, sëñ Mamoun Bousso moom a jox woy wa li nga xam ne mooy imaam bu ratib bu Touba noonu la demee muy dëkk boo xam ne kilomètre la woon ak pël moo ko joxoon mu fi bay lañu junniy junniy barigo yi ñu fi jëkk bay def ko ci fondation jumaa ji waaye ambition bi sëriñ bi amoon xalaat bi mu amoon ci jumaa ji ak ni ñu ko bëgg réyale day mujj ak tala lay lay ñor ci kilomètre du ko mën moo tax décentralisation boobu mu def moo Cheikh Amadou Fadal maa ngi koy wax keroog kenn ku ne xam ne Cheikh Amadou Fadal daan dem Tuubaa Bogo Ndindi fu ne fu ne fu ne sanc na fa dëkk àlliya loolu lépp ñoom jumaa jee taxoon ñu koy def ndekete booba ñu ngi décentralisé décentralisation bii ñëw foofa la jóge ñoo ko jëkk def Cheikh Mame Faat ñëw fii Cheikh euh, Mouhamadou Moustapha ñëw fii jóge fii dem Taïf dem na Jambéli Thion Kayel foofu yëpp ngir euh, surface bi nga xam ne yaatuwaayu suuf si ñu war a mën a bay ngir moo mën a financé jumaa ji dafa war a yaatu ndax jumaa ji dafa rëy loole moo leen ci indi woon sëñ yu nekk fii di jaamu yàlla di toppatoo bokk gi bëgg waa kër sëñ Tuubaa yëpp mhm. def naa ne ñu wax nii ñu nekk sant Mbàkke dëkk Mbàkke ak Tuubaa ak dëkk yu wër fii mën nañu ma cee ci jiw jiw wi bu ñëwee mu séddale ko fay fay ña defee boo fayee baax na boo fayul ah moom dana dana fayal ba nga xam ne du ci amee bor loolu daan dox euh, xamewul murit xamewul ci jàng xamewul lay ñëpp la yemale woon na nekk jullit rek waa Ngélo fi ne ngi fii ñu ngi fay bor bi wala rek ginnaaw lay féeti fan yi ñu ngi fii ñëw di def euh, seet seetal xamewul wolof naar pël tukkulër ñëpp la yemale woon te loolu def naa ne ñu dëkk bi mën nañu cee seede sant bu baax ndax loola ku ca jaar wax dëgg yàlla boo meree nii itam du jaaxal kenn kon ñoo leen ciy sant bu baax a baax baax euh, di sant nag sunu bàjjan soxna maam Fatima Mariama Lo wax dëgg yàlla daf ñoo safoo lépp lu muy def danañ woo yëgal ñoo ko euh, taxaw jëmmi waajur ci ñun ndax danaa ñëw fii suñu waajur ñu gis ñu ko suñu waajur teg ko ca kaw jële ko jëmmi Cheikh Mamadou Moustapha loolu moom it wax dëgg yàlla mu delloo bi kël loolee ci jabootam yàlla bu dund fa gis xam naa euh, Kazu Rajab buñ ko weesoo wala bu ko jiitu damaa xamatul euh, ñetti fan yi barax yi gannaaw Kazu Rajab la kon ñaari événement yooyu yëpp ñu ngi ñëw ñu fonk ko rek euh, di sant ñi fi teew yëpp ci bokk yi wax yàlla bari nañ ma ne su leen li ñu ma wax biñ ne bis bi danañ ko lii euh, di ñaan euh, waa dëkk bi lii nga xam ne sëñ Aliou Mbàkke moo moom moom la fi doon doxal ci dëkk bi ñu bañ koo fàtte ndax jamono daa ñëw ak yi mbiram gis nañ ne soppiku yu bare bari am na ci jamono léegi li may wax sax mooy ñun ñii ak gone yi daanaka day mel ni bokkuñu sax culture ndax télévision ak média yi dafa yàq doomu aadama yi kenn ku ne gis na ne euh, toog juróomi minute ci télévision ak seen njaboot te gisoo lu naqari mënut a am loolu dañ ko waroon a censurer parce que ñu yàq Sénégal loolu parce que itam mooy dem na ba gëmloo ñu lu dul suñu bopp te dana waroon gën gën gëm suñu bopp Cheikhul Khadim lam bëggoon ci ñun liggéey ak jàmm yàlla di am jom di ñaq bañ a bëggal kenn dara ndax bu fekkee da ngaa bëggal kenn dara ku ëmb sa xalam da nga ëpp bu ko defee day mel ne ku la rek boo liggéeyee nag ba am sa sutura mën a am sa teraanga doo bëggal kenn dara foofu nag la dignité am te la jom mën a fay ko defee loolu ñu sàmmante loolu bu ko defee bu fekkente ne dem nga ba seen loo xam ne ci télévision neexu la tere ko say doom tàmbale ko ci kër gi waaye ñu lu ci bari suñu responsabilité parce que boo leen bàyyee noonu rek dem nañ ba agression parce que dëgg la il est vrai ci asamaan si lay jaar di ñëw waaye ci biir kër gi moom fexeel ba fexeel ba sa xale moom nga bañ mu seetaan yu bon yooyu parce que moo koy wàll aw xal la wo xam ne dafa dend ak kër yu ngelaw lu bare bari di faram boo tuuree dana ci am lu lu cay wàll borom kon na ko suñ borom waxoon na ko suñ sëñ xadimu rasul waxoon itil xalilu bil xalili yaqtadi faman yusaahiba rachida yarchidi boo àndee ku bon bu yàggee rek boo tuur dana la wàll kon nag mi ngi leen di digal ngeen ànd ak ku baax ku jub ngir yàlla ndax bu boobaa dangay mën a jub loolu la lu sëñ ci wàddi rek

joxaat ko di ko suuxat di suuxat dundin bi ni ñu bokk dundee ci société bi ndax euh, ñu ngi ciy wax jàmm li ci delloo nit ñi ci suñu borom tabaraka wa taala di leen gën a jàngal kan mooy xadimu rasul ñuy am comportement yu baax di mën a dëkk di gën a sori lu bon di gën a jege lu baax bu ko defee euh, li ci baax mooy ñu delluwaat ci éducation yar xale yi yar xale yi parce dañuy wax ne الباعثين ما دام رتبا waxrisi lxuda madama latnan su fekkente ne euh, argile mooy ban boo ko bëggee jëriñoo da nga koy bi waaye su fekkee loolu jëmbat la ba mu wow da nga koy jëmbat ci bi soo bëggee mu jëmbe kon xale yi noonu foofu lañ leen war a jaarale ngir ëllëg ñoo yor avenir mi mel bu ëllëgee kon ñu farlu ci bu baax ci yar nga xam tey suñu wajur yu baax yee yaroon nañu ko ñun ñëpp loola ñoom it seen wajur yaroon nañu ko mu doon jokk jolaatoo jóge ca maam yu baax yi ba léegi moom kan loola tax moo fi bàyyi bareel bii buñ ko sàgganee sax yi ba jën di foofu la ñuy parce que ku gis Sénégal nit mel ni da ngay tiit da ngay tiit lu neex waay wax lu neex waay kon ñu delluwaat ci njàngaleem Serigne Touba buñ ko defee rek danañ nopp noppalu ñu ngi sant ñëpp képp koo xam ne tudd ñu la it nga xam ne suñu xel mi ci yow ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Cheikh moom sëñ Baara Diop sëñ Baara di suñu mbokkum geet ngi fi ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, famille yu bi nekk ci senegal yëpp ñëwoon nañ fi démb ñoo ngi leen di sant bu baax euh, waa euh, ahlu jant bi ñëw nañ fi ñoom itam ànd ñoom ñun di jox xaalis ñu koy suñ poche. dëgg la dañoo ànd bu koor jotee ñu wut suukar ñu dajaloo fekk ca daara Cheikh Mamadou Moussa Fadé di ca yi ñu seet ni nga xam ne aajowoo nañ ko ñu jox leen suukar si bu ko xam ne jotee di dem ziare ji euh, sëñ Bas mi sax waxtaan ko ne ko daayira man jaay bi nekk ci ndóol yi man fa jox kër euh, maa ko yàggal maa ko yàggal ndax jafe-jafe jafe-jafe tànk yu xaw a ak yitte yi waaye ahlu asxaabu ceeñeer aussi loolu leen def mat nañ juróom-ñaari téeméer ña nga Dakar te rajo bi rek moo leen xamale ci waxtaan loolu fii waxtaan di ko jéem a xam xam di ko jéem a xam ne ñoom loolu la def maa ngi leen ngeen di dem Poroxaan dem seeti ñëw Tuubaa ziyaare seen Tuubaa muy Cheikh Sidi Moxtaar mi fi nekk ak jumaay Ndakaaru jël du ngeen ci mën ngeen jàpp ci loolu lañ fay loolu la def kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant ñëpp ak soppe yi nga xam ne ci Sénégal yëpp ak waa Majmahun Nurayni Majmahun Nurayni yi nga xam ne lépp lu ma man ñu ma ci jàpp ndax daanaka dama ko tamacul sama ay société sama yëpp daane fi yàqu na daane fi ndax loo bëgg rek boo ñëwee fekk foofa max max wala ay rahim la loo gëj rek da nga ko fekk wala ay lënd moom la bindoo yi ak ñu baax ñi boo ci gëjee euh, boo ñu fàtte leen doomu adama dafa gaaw fàtte kon ñu delluwaat ca euh, mag ñu baax ñi nga xam ne tàmbalee ci waa kër Maam Maaram waa nga xam ne kenn ku ne sa morom moo la loon sa bopp buñ seetee foofu mu yomb sa morom moo la gën a loolu si bopp Cheikh Ahmadou Bamba ñëw xar baax xotti baax waa këram yii fi ñu fi bàyyi kenn ku fi mas a jaar ku ne daa ñëw daa roofu ci yow di jëf loolu di wax loolu di jëf loolu di wax loolu ñoom itam gis nañ liggéey bu rëy bi fi def dara mosul na ñor dañ ko delawaat euh, xadimu rasul kon nañu roy ci ñoom li ci des mooy presse bi ñu leen sant gis nañu vraiment mooy que ñoo mën a defar réew ñoo ko mën yàq te wax dëgg yàlla presse bi nekk fii euh, ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax di sàmmoon teg loolu lu am solo lu am solo euh, bu fekkente ne li ma mën a xam mooy juróom-benni weer dong mën nañ ca defaraat Sénégal presse bi juróom-benni weer dong ginnaaw euh, ñuy ñuy toppandoo fi ne lu yomb la dinaa doon ñu toppandoo ah kuy toppandoo defar fa moo gën a yomb waaye yàq fa it moo gën a yomb ndax la ngay gis da nga koy singer surtout buñ jàngee ñëw ah, karawaatu wax làkk tubaab dafay ne yaa golo ah fàtte nga say maam ñu jàngal la nos ancêtres les Gaulois suñ Gaulois yi ñooy suñu maam. Gaulois yi nekkoon ñu weex tal ñu ñu jàngale loolu seen histoire ba fàtte loolu sa histoire yow nga fàtte ko nga xam ne lépp da nga koo jéggaani ba noppi di ko tiitaroo nga xam ne fàttaloo ci biir fàttaloo sa bopp boobu nga ngay tiitaroo nag kële nga xam ne d'abord dafa ñëw impérialisme jaar na ci not la jaar ci colonialisme not la jaar ci esclavage mais ñooñu bu fekkente ne sauvage la ñuy wax wala di traité nit ñi ñoom la ci ñoom la jëkk

أفضل الأعمال ما أكرهت ما أكرهت نفسك. وقيما نونو بقد في من عاقدي تبارك الله. أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك. دي جنت جف موي ليغا خامني يا كي نوت سابقا. بغيت نجيب لك fekk ña ngay waxal dégguñu la ngay wax foofu dialogue de sourds la waxu tëx ak tëx loolu la nga daal toppandoo arab la fekk arab la waroo koo toppandoo ndax euh, culture am wax dëgg yàlla boo fa dundee ci ñoom da xam ne duñu exemple léegi yonent bi def sallallahu alayhi wa tëral fa loo xam ne mooy diine delluwaat usul lan usul diinil ula delluwaat ca mais ba ñii bañ ñëwee asaar yooyu yëpp dañ koo far parce que jàpp nañ ne loola bu génnee ak ñañ faagaagal waa kër yonente bi buñ dellusee mais seen régime bi day daanu moo tax luñ ci man ci far ak di wut yeneen façon julliin ak yeneen yoo xam ne pour lépp pour dindi fi ñu fi newoon nga xam ne ngànnaay lañ ko def ak économie parce que bu leen fàtte ne mm, aj gi économie bu am solo la waaye ñoru leen mhm. dafay am kon ñun dañoo war a dellu suñu cosaan ci sonal xam suñu bopp gëm suñu bopp ci xool ni ñu ko sëñ Tuubaa yéenee ak fi mu jaar pour loolu mën a yomb ci ñun ak ni ñu ko tegtalee te lépp lay ànd ak diine ànd ak islam ngor defe naa ne

dañuy dem Italie dem fu ne ñoo yëkkati mbootaay googu nga xam ne dañ koo jagleel maam aram gépp ñu leen di sant di sant euh, mbootaay googu le di ñaan yàlla may leen ci ndam ndax jamono ji day sos ci nga sos bu demee ba antu euh, moom koy samp soo xel kon waaye yàlla nañ ci yàlla la di sant euh, soxna moom sëñ Abdou Xaadir soxna May moom sëñ Abdou Laat soxna Gàddu Buso soxna Asu Mbàkke moom sëñ Abdou ci jàppale yi ñuy jàppale ak maam Asu Mbàkke maam Isa ak ñu kafe léegi lañu woo ma nga ca Italie li sant bu baax soxna Jóob suñu mbokk kër yaa ba moom itam ñu fi teew ak ñu fi teew ñëpp rek góor a jigéen ma nga ndaw euh, ma dellu si waat ci nag maamu ñoore yi ak daayira kër gi yëpp nag sax daayira kër gi yëpp ñu ngi di sant bu baax gis nañ ni ñu bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla xam ne wax yàlla euh, ndaru yor yaa ko moom du jar gis nañ ne ba suñu soxla yëpp ñu ngi ciy jàppale loolu doy nañu sëkk <laughs> ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp donga yi daara ci daara ji ñoom itam fenn fu daal te nga fay yëngu ngir bëgg lu baax kon sëñ Moustapha ñoo ngi dellu di la sant bu baax di la ñaan nga jot ci ñu njabootu sëñ Tuubaa gépp nag sunu cant ci ñëw gi ñu fi ñëw ci dëkk bi nga xam ne mooy seenu dëkk di Daaru Naim di ñaan suñu borom euh, jàppale ñu ba ñu mën a roy ca mag ña ndax la ñu nekk woon mooy dëgg ndax mooy la Xaadimu Rasuul digle woon li Muhammad Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam digle woon mooy la nga xam ne sax nañ ca daan ko jëfe di ko doxee di ko waxee yàlla na ci yàlla xeer ci roy leen di jaay seen dugub bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu